tax euh, président euh, wóoluwul Mimi Touré ba def ko présidente assemblée nationale. Mhm. dama ne woon euh, dossier Karim Wade bii ñëw moo tax. bii ñëw bii ñëw. Mhm. parce que xamoon naa je crois yaa très bien ne woon naa prochaine étape Macky Sall mooy réhabiliter Karim Wade te loolu assemblée nationale la mën a jaar te boo seetloo relation bi nga xamante ne ni Aminata Touré amoon na ko. ci instant yooyu ak opposant yi mhm. de manière générale ay relation yu heurté la woon puisque moom moo jiite woon euh, nu mu tuddati la traque des biens mal acquis ah, comme ministre de la justice très bien donc bu ñu ñëwaatee en deux mille vingt deux ñu bëgg koo fal euh, président assemblée nationale c'est comme si dañ koy wax déconstruiral li nga woon entre deux mille douze et deux mille quinze te loolu ko pour koo xamante ni am na ay ambition ci dëkk bi yaakaaruma ne. Euh, dina ko def c'est c'est la bonne chose. Mm-hmm. maintenant par rapport ak la Sidi Bara wax parce que mu ngi wax ne madame bi ñu ko bëggee imposer une liste dafa def une liste parallèle fippu. Mm-hmm. donc moom mun na ko comprendre malheureusement dans le cas de Mimi moom dafa avaler plusieurs couleuvres maanaam dafa nangu nangu nangu nangu ba nit ñi jàpp ne sax moom dootul nangooti. Mm-hmm. Euh, dootul bañati. dootul bañati puisque en 2014 boobu. Mimi Touré. bi ñu koy envoyé pour mu dem fii à Grand Yoff ñu bëri xamoon nañ ne elle la peu de chance pour remporter les élections d'autant que waa APR dañoo jël benn booy taftal ko ko pour muy perturber campagne ba mu perte élection la ko président wax ne rends-moi nu mu tuddati mu démissionné mu bañ président démissionné la ko par mais li gën a garaaw mooy euh, digganteem ak Idriss Seck ci con euh, ci au conseil. CES. waaw CES laa bëgg a wax mais boobu moo gën a garaaw moom bi mu koy net li da ne président daf ko woo ne ko léegi abalal kii mu toog. oui ki nga xamante ne nii elle passait tout son temps nu mu turati à tirer sur lui ñu jékki-jékki ñu ne ko kooku. dañ la fiy jëlee indi ko ci place bi nga toogoon di ko critiquer. Mhm. <laughs> bu boobu loolu moo gën a garaaw lu ñu def soxna si pourquoi boobu jëluloon ay responsabilité ne humiliation bi parce que loolu pour man humiliation la bu ko président Macky def donc elle doit prendre ses responsabilités dem. Mhm. defu ko donc moo tax nit ñi jàpp ne bu ñëwee ba euh, deux mille vingt deux ñu ne moom ak président waxtaan nañu dañ ko waroon a jox postu euh, nu mu tuddati présidence assemblée nationale joxuñu ko man je dis que Macky Sall l'a trahi mais c'est bien fait pour elle baax na si moom <laughs> puisque effectivement li nga xamante ne nii lépp amul benn démocratie moom da ci ànd ak président Macky Sall ba dem ba joxe résultat élection législative yi si guddi gi di wax sax ay dëkk yoo xamante ne gañe nañ ko alors que gañawuñu ko donc on peut dire que moom ak Macky ñu ngi woon pratiquement sur tous les deals. Mhm. dem nañu nag ba si njobbantal ga Macky Sall xam na ne am na benn agenda boo xamante ni Karim Wade mu ngi ci. Mhm. te Mimi Touré du nangoo delluwaat ci loolu Macky Sall tegee ko nële maintenant elle a le droit d' avoir des ambitions de les manifester mais bu mu victimiser wu parce que. Mhm. li ko dal yëpp moo ko teg boppam. loxoom génn alors Pape Makhtar. allez-y la la euh, démarche de Mimi Touré. <laughs> damay damay damay damay continuer rek ci li Mame Birame wax parce que en réalité damay damay damay dellusiwaat ci li ma waxoon sànq ci euh, jamonoy jamono. jamonoy mars. Mhm. effectivement daf ko cautionné pourquoi ba ko Ousmane Sonko nuwee nañu nañu nañu débat dafa ko posé quatre conditions quatrième bi moo nekkoon mu seetal boppam ci accusation yi ñu ko teg. Mhm. Mhm. c'est vrai boo cautionné wul woon loolu doo wax loolu parce que yaakaar naa ni yow mi ñu accusé ki la bu nekkee ci droit ñuy wax. ki la accusé moom moo war a indi firnde que li ñu lay accusé dëgg la mais yow mi nga xamante ne la accusé dafa am lu ñu tuddee présomption d'innocence mhm. Mhm. yow boo ko violé ba kay naan yow teggil tuuma ñu la teg donc yow doo ku républicain mhm. bu ñu continuer ci li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy démarche bi sa démarche le le fait de refuser parce que foofu laa bëgg ñu naan le fait de refuser euh, bañ ne du delloo affaire man je pense même que c'est un droit mais bon moom mmh. mon point de vue compte peu mais en tout cas le fait que mu wax ne day nekk député non inscrit alors que ay Aïssatou Ndiaye mi ngi koy rappelé sax elle est élue sur les listes de Benno Bokk Yaakaar même si la loi day wax ku démissionné ci parti yu demee noonu mais on se rappelle que le président Macky Sall en 2009 je pense ah voilà, wala c'est ça bi mu bi mu démissionné PDS moo dirigé woon les du PDS ah pour dem assemblée nationale mais dafa leen delloo lépp lépp dem wuti est-ce que mënuñu woon a xaar la même chose de Aminata waaw en fait parce que nekk dans une position boo xam ne dina xaw a jafe mooy assemblée boo xam ne euh, fexe nga ba majorité peut-être ñoom duñ ko nangu mais 82 am fi nekk nii nga war fay dem jàkkaarloog ay député yoo xam ne lu ne mën du toog ak poste bi sax bañ di dem assemblée nationale ambiance bi ci biir assemblée nationale bu ñëwee. Mhm. surtout ak ñi nga xamante ni ñooy ay ex camarade ci waa benn bokk yaakaar dinañ ko def comme nu mu doon nu ko waa benn doon defee Sonko bu wax ñu koy yuuxu wala di ci di ci li nga xamante ni mooy mooy assemblée nationale. puisque mhm. je suis taxé de sonkiste bàyyi may jël exemple Sonko le plus souvent ça me dérange euh, beneen mbir bi euh, yaa ngi koy wax léegi Moustapha c'est-à-dire euh, démarche am tey bu nekkoon par exemple assemblée bi dafa am majorité bu absolue comme ni ñu ko tàmmoon di amee. Mhm. xam na ni comme tey pour mën a embêter Macky Sall ak euh, waa Benno Bokk Yaakaar. Hmm. moom voix am dafay compter du leen ko delloo. parce que aussi bu ñuy nuwee rek dañuy yem ci cadre li nga xamante mooy yoon député Benno Bokk Yaakaar nekkul biir assemblée nationale. booy dem ci biir assemblée nationale li lay jox vert jaune rouge la. Hmm. député du peuple la. Hmm. bien que benn liste moom moo la moom moo la. moom moo la moom yooyu yëpp. mais sénégalais yi ñoom ñoo tànn ñu donc tey jii député boobu noonu bu nekkee député du peuple sénégalais la mais am na sañ-sañ am ay contradiction beneen mbir bi nga xamante ne aussi mu xaw ma jaaxal trop ci homme politique yi c'est-à-dire pourquoi ñoom ak accepté wuñu contradiction pourquoi mënuñu accepte ci seen biir benn bokk yaakaar. Hmm. mais am benn voix bu discordante. mais oui ce serait une bonne chose. pourquoi ci yow ki nga xamante ni yow da nga ni da nga bëgg jiite réew. alors que ni réew par force dina am ay contradiction quand quand Djibo Ka a lancé les courants au PS ci la fa jugee ah. mais fépp la boo demee PDS aussi fépp la ak feneen ak feneen. et je pense que ni loolu moom mooy moom mooy problème Sénégal parce que bu nekkee yow ci sa propre parti ci sa propre kër munoo accepter que ni ay contradiction di si judd dafay poser problème leneen li nag. man li may wax dama koy continuer di yàgg di wax gis nga Mimi Touré victime de ses kese la Macky Sall xamoon na ni Mimi par A ou B dafa doon dem ci liste ñàkk ko wóolu. moo tax mu def ko tête de liste parce que xam na ni bu deful woon Mimi Touré tête de dina dem ci beneen liste parallèle wax dañ lay a mais c'est ça Mimi dafa doon dem ci tête de ci liste boppam te bu demoon ci liste boppam mais Macky Sall yow mooy président boo xamante avant élection day def sondage xamoon na ni bu Mimi Touré demee ci liste boppam dina yóbbaale ay frustré yoo xamante ni bëggoon nañ ñu leen mais amuñu fu ñu leen investir